Euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf noor bu si njàgg ca Casamance tàng jër la def ci diggante soldat yi Sénégal yi ak fi PMFDC yi. ubbi l'observateur ba démb ci alxames ji rek journal bi nee nañu gaañu fetelante lañ fa yendoo ba l'armée bi faat ci fipp ya lim bu takkoo takko sax l'armée bi ñàkk na ca benn soldat amit yeneen juróomi jàmbaar yu ci jëlee gaañu-gaañu fippi MFDC yi seen ñaari base yi ëppoon doole l'observateur nee nañu soldat yi Sénégal yi nangu nañu ko lëkkut nee nañu fi ñu nekk ni kay Salif Sadio ak i ñoñam jommi jomeet la ñu def juróomi fan ginnaaw opération de sécurisation ak opération de démantèlement yi base yi rebelle yi amoon ca nord bu Sindia la l'armée bi teg loxo soldat yi Sénégal yeeg ñu nekk fan yi quotidien le témoin mi ngi laaj ndax du aso bu mujj ci kaw waa ji di Salif Sadio njiital fi PMFDC yi ne taxawaay ak dogoog njàmbaar gi jàmbaar yi nekkee ca Casamance fan yi di fa wone doole ju mat sëkk ndax du laa fi Salif Sadio yi ñooy bëgg a damm Sud Quotidien nañu am na benn soldaarub Sénégal bu fa daanu waaye njiital fi pii di Salif Sadio li mu ci ñàkk ci élément kenn xamul nu ñu toll fi ñu toll ni ñu toll ci jaaxle gu ak boobu tëju ràpp Vox Populi nee nañu ñoo di askan wa ci Rufisque juróom-ñetti mool di ay nappkat ñoo réer seeni mbokk depuis le 2 mars fi jóge dem géej booba ba tey seeni mbokk déggatuñu ci ñoom dara xamuñu fan la leen jant bi di tiim ñu bari ci mbokk yi nee nañu leen rek leen dese jamono ji moo di di julli di ñaan tey dunde yaakaar ne dinañu dellu si ñu jóge te ngéej te wax ci Pikine yëral xët mu njëkk la Sénégal lu jëm ci wàllu aménagement ak développement bu banlieue bu Ndakaaru Macky Sall lancé na ab plan spécial ngir diwaanu Pikine te taxaw na ci tem firnde li laas nañu moo di ca doon def démb ci njiital ministre Omar Gueye ca digg CRD ba le président Macky Sall woowee téléphone ministre Omar Gueye ngir bëgg a xam fan la yëf yi Malick Gaye directeur général bu AGETIP la Sénégal nee nañu leeral na fa instruction yu président Macky Sall joxe jëm ci liggéey marché syndicat ba ca Pikine nee na président bëgg na ñu travaux yi fukki fan juróom ci weeru avril mu di marché bu ñuy liggéey ci ñetti hectare ak genn wàll boo xam ne dafay ànd ak lépp lu marché bu baax te moderne war a am direct ci news ne ñu njiital AGETIP El Hadji Malick Gaye engagé wu na ci li président Macky Sall santaane gi njiit réew mi bëgg ca Pikine AGETIP sànjaafu na ko ñu sànjaafu ji politique bi ak l'observateur mi ñu xëy xibaar ne ginnaaw parti bii di PCS jéngo bu Boubacar Camara waa MCSS Fulak Fayda génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi musicien bii di Idrissa Diop doon it vice président bu parti MCSS Fulak Fayda nee nañu dañoo seetlu ay njuuj njaaj ak ay magu yu dallu seenum xel ci biir coalition Yewwi Askan Wi moo tax ñu buub seeni kaake dem seen yoon a lëj dina waxtu gi ba mu jaxasoo tir ko ginnaaw waa gëm sa bopp ak waa yeewi askan wi taxaw ne duñu laal parrainage ci élection législative yi Abdoulaye Wade ak i ñooñam ñoom it mu di waa wàllu Sénégal nee nañu parrainage du fi am parrainage gi waral coow leeg mbambuli journal l'info nee nañu bu dee am na ci ku mu baax a kës néew moo di Macky Sall ne au moins mën na koo xiitali ba ay liste parallèle du am ci waa këram yi kenn ci waa këram yi moom Macky Sall di Zahra Iyane Thiam ministre microfinance mi ngi wax ci la Sénégal ne ku ci dugg ci ay liste parallèle loo ci góobe nanga lu mu xamul fan la koy gare mooy ndaw si ci yéenekaay bi nañu doomam ju jigéen lañ doon génte mu bëgg koo làngal yebbil ko tax mu dem tiriande ñaari moroomi jigéenam ay tissus de valeur yu toll ci ñaari millions. seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jaajëf Modou Mouhamed Ndiaye mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi bon lu bees ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, borom suite boote nag Ndeye Khady Ndiaye euh, doyen de juge moom moo ko dal di convoqué euh, taat bi ñu dëgmal ngir déglu ko ci dossier bi dama gën a xóotee beneen mbir muy bébé Lansana mi ñàkk bakkanam foofee ca ñeme nekkee ca région bu Kédougou garde à vue nag ñeel ñett sax ñu coxar baaraamu tuuma dañ ko daal di wóyal ñanga ñu tey ca gendarmerie ba nag ngir ñu daal di jeexal lii di enquête bi élection législative ñu waajal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal wàllu Sénégal i yow askan wi euh, wax la wax ne coalition boobu nag bopp sëb ne du mu sa ànd ak système parrainage bi mbokk jaa ngeen jëf mu nekkoon. xibaar yi ci yaatal ci micro bi technique Kader Lo Yacine Pouy mën ci wàllu football ndax gaañu gaañu bi nga xam ne moo ko daal di tëral waaye lu wóor te wóor Alfred Gomis ak itam Seny Dieng ñoom ñaar ñëpp di góolu Sénégal duñu bokk ci googu jogante ndax gaañu gaañu bu leen tëral daal na ñoo xam ne itam kii di Kamara euh, moo leen fas kon bokk remplacé euh, ci googu les listes lu ci mënti am rek jàppaleen Sénégal Égypte match aller bi dinañ ko daal di amal le vingt cinq ci di wéet benn yoon danañ ci ànd ak deuxième gaynde yi ni koy defee saa su ñoom sax dañoo daal di kon bokk lancé seen plateforme tuddee ko manko uti ndam yi ndam euh, moo di équipe nationale bu football bu Sénégal ak itam yeneen catégorie ba jàpp yeneen discipline démb deuxième gaynde gi di comité supporter Sénégal li doon amal jono ak way xibaar yi daal nañ ci yëkkati ay kàddu yu déglu seen yi muy presse muy ki ne ci mbedd mi li deuxième ngeen doon wax léegi mën naa nekk dañ wax ni kenn du ñaar kenn du bëri ñaar du bëri ñett du bëri dañ daan wax ni na ñu booloo suñu xalaat ndax ñu am ndam dañ daan wax ni nañu xool ci benn direction ndax ñu am ndam dañ daan wax ni bu ñëpp booloo nekk ale Sénégal dañuy am ndam def nañu ko am nañ dam ñu bëggaat nag ñëpp defaat lu mel noonu nekkaat ci ginnaaw douzième gaynde nekk benn douzième gaynde ñu wax allez Sénégal yàlla defal ñu beneen ndam beneen ndam mooy qualifié coupe du monde nekk première équipe africaine bu jouer finale coupe du monde Sénégal lay nekk. donc je suis invité tout un chacun sens élevé de patriotisme Sénégal tey bu doon nit la kenn ku nekk amal na ko njëkkeel dañ fi juddoo yaroo fi fekk fi baax baax fekk ñu fi mu jox ñu éducation jox ñu santé. tey bu doon kenn ku ne dafa delloo njukkal Sénégal rek mooy douzième gaynde maanaam Sénégal d'abord kooku di Issa Lay Diop di njiitu douzième gaynde comité national supporter yu Sénégal ñu daal di waxtaanee wàllu Ligue des champions yi ci onze heures jotee la ñuy kon bokk amal lii di tirage au sort quart de finale yi tirage googu nag ñi mu concerné moo di Atlético Madrid Bayern Munich Benfica Lisbonne Chelsea Liverpool Manchester City Real Madrid ak ñii di waa Villarreal ni ki démb itam ba football li nga xamante ni daal moo di ca Monaco match al bi équipe bu Portugal gi moom moo ci daal di amoon ndam FC Barcelone moom tamit daal dina qualifié ci wàllu quart de finale gannaaw bu mu fekkee doomu Turquie di Galatasaray dem seen dëkk daal leen daan dañoo daal di amaat ndam seen digg ak ñi di waa FC Bâle di club suisse ñaari bal ci benn kii nga xamante ne moo di Papa Gueye jot naa football ba match bi jeex Cheikh Bamba Dieng moom ma nga woon ci ban euh, remplaçant yi Angleterre démb dañoo doon dabe itam seen vingtième benn match amoon diggante Everton ak Newcastle Everton moo fa dal di am ndam benn bal ci dara fàttali nag kooku championnat di championnat bu Angleterre jamono gi dañ ko dal di relancer totalement ndax benn poñ daal di dox ci diggante ka ci place bu njëkk bi di Manchester City ak Liverpool bu Sadio Mané. pour man RFM seen soxla. xibaar ñeel caate dañ ci ànd leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbale lu soxal musique artiste bi di euh, ayda Samb lañu ñu daal di euh, ràññee ci fukk ak ñaareeli édition Massa di marché des arts et du spectacle bu Abidjan fële ci réewu Côte d'Ivoire woykatu Sénégal bile ñu daal di ko euh, jox raaya Massa 2022 gi ndax qualité prestation am yi. ajuma ji nag théâtre euh, Daniel Sorano dina dalal benn soirée de gala euh, bokk ci spectacle de restitution résidence Marseille en Afrique mu di initiative bu tukkee ci structure bi di euh, Afrique Consult dañ ci ndéglu njiit la di Latsouk Ndiaye. Marseille en mën a yóbbu ay nit wan leen beneen culture jël culture Sénégal yóbbu ko feneen wan ko beneen culture sur le plan musical mais ci biir loolu dafa amaale jàngale maanaam euh, pédagogie pédagogie bi mooy lan moom mooy dafa am yoo xamante nii dañu jógee ci bitim réew nekk ay artistes yu mag yu ñu xam am ay ay prime am ay prix am ay am ñu ñu décorer leen ci lu ne daal seen wàllu liggéey ñu am njëriñ bu mag am xam-xam mag ci wàllu musique ñooñu ñoom ñooy suñu ay partenaires ci projet bi ñoom lañ àndal ñëw fii ci Sénégal ci maison de la culture ak orchestre national di programmer festival bi nga xam di événement bi nga xamante ni moom mooy projet Marseille en Afrique donc boo xoolee Marseille bu ay 1945 ak yooyu ay sénégalais ñoo ko doon yor donc Sénégal ak Marseille am nañ lien bu bari mais projet bi yemul Sénégal kese Afrique la bokk. interview bi ni mu gën a yaatoo ak euh, Fama John ni ki ëllëg euh, samedi Latsuk njaay mooy doon ganuk seen magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam ajuma ji itam dañu amal cérémonie dédicace téere bi ñu dippe Amadou Makhtar Mbow ce citoyen du monde Aladien moo ko bind cérémonie bi dañu ko amal bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ca musée des civilisations noires mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax.